ñëpp ràññee woon taxawaayam ci diine ci nekk koo ko yoon gëm waaye dina fekk ñu ci takk sànni tiis dana ko ñu nekk lu jëm liggéeyal suñu tubaab liggéeyal diine bi. mën a dund da nga xam ne ñu ko bokk sëriñ Ahmadu Mbacké seeree na moom wax ne ñun loolu sëriñ tubaab ëpp luñu ko xaraf sëriñ Abdou Khadre moo la ko seer te ñoom suñu tubaab yëpp itam ñu bokk suñu tubaab kenn ku ci ne sëdd bu ko cër boo ko séenee ñu ne doo ko wutale jëm sëriñ jëm sëriñ tubaab wala jëm doon sëriñ kon ñu ko ñàkkee seer la ci réew mi seer la bi itam nga xam ne dafa koy bon nga yabal délégation ba dund ñu ñëw ànd ko njëriñ bi ci bis bi te itam dañu war a sa ñu siyaare si sëriñ Bassirou suñu profane yi ñu def ku ci nekk nag say kàddu dañ koy dégg ñu kàddu yi passé dañ ko bëgg a defal réew fi ñu mas a gisee loolu lañ xam ci yow fekk dañu jaaree ci kaw lu bari te def ñëw fekk ñu jot ci réew mi yi nga wax ci yéene defar réew mi dégg nañu waaye man dégg naa kàddu yi nga waxante si ñoom laaj yu gàtt am na léegi koo wax waxtaan naa kaddu yëpp nag kaddu yi bëgg a def lu baax la kaddu yi bëgg a defal réew mi la kaddu yi bëgg a ànd ak ñi ñu kenn ku ne nga def ci réew mi jaww ji gépp yoon wala ñu ko mooy na ci ndigal di